seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang. tàmbali yër yéenekaay yi ak mbiru Mariama Sagna militante Pastef bi nga xam ne dañ ko boom ca Kër Massar ginnaaw ba mu jógee ci meeting bu leaderam amaloon ca Kër Massar di Ousmane Sonko. procureur bu Pikine wax na génn na ci pat pataaral gi mu nekkoon wax ginnaaw jébbal nañ ko enquête bi yéenekaay yu bëri nag xëy ci tey jii. lu mu wax moom mii di procureur nee na mbir mi mbirum viol politique laxu si benn yoon kenn ku ñu jàpp sax ku tudd Ousseynou xamle na lu bare bare ci mbir mi nee na moom moomule moo jàpp Mariama Sagna Saliou Boy doog a mën a yegg ci kaw Mariama Sagna moom mii di Saliou Boy sax moo xoj Mariama Sagna ba mu ñàkk bakkanam ñaari dawalkat saret yooyu le procureur di xamle ne ñoom ñoo bett Mariama Sagna ci biir néegam mu doon summeeku ñu daal di dal ci kawam sàkku ko procureur nee lu ñaaw nag la ñu def ñoom ñoo violé ba pare xoj Mariama Sané mu ñàkk bakkanam yéen kay bi di laas jotti lu ñu kàddu yooyu lee bagage yi ñu jot a sàcc nag ba yóbbu ko Fatou Bintou Thiam lañ ko jaay ak Khadim ñoo ñooñu jàpp na leen def leen placé en garde à vue wadd ma dikke ñaa ba tey ji ñu ngi wër wërloo ñu tàmbali ak yéenekaay bi Le Quotidien du ñu yëgal ne ma dikke ñaa ci boppam nee na groupe parlementaire libéral bàyyi na ko ndax nag bëggul laale ak kii di maître Abdoulaye Wade waaye yéeni kaay bi di Vox Populi na tontu bi mu tontu Abdoulaye wadd saf na sap torop sax nee na ko fi mu nekk nii yaa ngi wax na man maay def suicide politique waaye liy suicide kay mooy PDS ñàkk am candidat ci élection présidentielle yu ñu jëm te nag Abdoulaye Wade li ma jaaxal moo di moo di li nga may tuumal lépp te dara amu ci fan nga ko teg ci biir yéenekaay bi l'Observateur la wax kàddu yu ñu mel ci biir yéenekaay bi di laas mu ne bu ma doonee candidat wàdd ci boppam moom ma ko njëkk a gëmloo ne mën nga jël sama ndoro moo tax ma doon candidat yamul ci loolu de moom mii nee na Macky Sall amul lenn lu mu ko mën a tegee ay pression ba tax muy woote ne képp ku gëm parti bi ak ku nekk ci biti fi mu nekk nii faaw ñu àndandoo am candidature alternative ci biir yéenekaay bi di laas Boubacar Camara di candidat féppu ni budget Sénégal bi ñuy wax naxee mbaay la déedéet méngoowul ak lu am forum civil yéenekaay bi di laas nee na mag yi ngalawaay yëkkatil sa loxo bu diis bi nga teg ci rapport nag yi ñu càmbar ñooñu nag ndax nag ñu ci tudd bari na lool Assane Diouf ma nga ca prison waaye ñaa ngi koy bundu bu baax a baax a baax a baax ci biir prison ay avocam ñoo ko xamle démb leen janoo ak taskatu xibaar yi maître Clédor Ciré Ly ci biir yéen a kaay bi Les Échos ne Assane Diouf amul problème ak justice waaye kuy fayantoo la am ak problème dañ ko dóor dóor yu métti garde pénitentiaire yi ñoo ko dóor ba damm tànk bi dañ ko torturer nag isolé ko ci benn cellule ak tànkam bu damm Maître El Hadji Diouf ne nii nag moo tax ñu ne juge yi ci boppam ñooy yàq deru justice présidentielle 2019 Vox Populi ne ay artistes yoo xam ne siiwuñu kenn xamuñu dañoo nekk en perte de visite tojuñu fenn ñoo ne dañuy jàppale kii di Macky Sall seen yaa ngi ci biir yéen kaay bi di Vox Populi Sénégal de football ak Soudan ñaari yoon gaynde yi tàmbali ñeneen entraînement bi fii stade Léopold Sédar Senghor waaye dañoo mer ba futtu loolu lañu yéen kàddu observateur wax lu tax pelouse bu bona bona bona bon kenn mënu faa football jërë ngeen di si déglu ñu di suivre seen seen Dakar Matin point com incha allah